ngi noonu wax nga ko ba ci agression yi nga xamante ne jotoon nañ ko fee nemmeeku loi d'amnistie daal di fi jaar mooy Ibrahima Isidore Ezan njortu nga ci loi d'amnistie bi par rapport ak information yi nga xamante ne ñu ngi koy véhiculer un peu partout ñu gis ñi nga xamante ne ni société civile la ñu fare di sàkku à ce que ñu signé benn pétition ñu rapatrier njiitum réew ma woon Macky toppeeko toppee lii di haute trahison mais xam nga luy haute trahison mais je crois c'est la

yi wala wala takk der yi ak euh, booy booy yi nga xam ne wax dëgg yàlla dañoo sonn ci réew mi ah, nekk ci ay situation yu metti yaakaar ci benn euh, nit mu tudd Ousmane Sonko demoon di def yenn affaire yi ba ñenn ñi dee ci te kenn xamagul ba tey ñooñu lan moo leen rey ñooñu euh, wax dëgg yàlla kooku xëy na bu ñu ko woon dinañ am lu leer par rapport parce que c'est un bel aveu qu'il a fait hein ce mec là ah mm. il a carrément dit que ni dafa ay il a dépensé beaucoup d'argent ci ay cocktail molotov jaay na jox na ay nit jox na di ay nit def na ay affaire ay bagages pour réew mi jaxasoo euh, pour wane euh, courage am wax dëgg yàlla kooku yomboon na américain yi Sénégal demandé américain ne ñu ne ko yow comme état mooy continuer te kese. Mm. dont si ñoom la nduróog lu far. Euh, ñoom waroon nañ ko mën a woon ne non lii ñun mosuñu si ànd. yow ndekete kon yow lii nga def kaay ñu dem jëli la mais di ma wax ay waxu Macky ancien président de la République boo xam ne il est couvert d'une certaine immunité mais mais mais oh. moi je vous parle de Macky Sall. nga ñëw indil ma non man aussi doo ma ci ay Macky parce que c'est ridicule. ki nga parce que c'est ridicule parce que c'est ridicule. pourquoi c'est ridicule xam nga tax parce que non la. moo di pétition la moo di opération bi waaw mais man sama point de vue tontu naa la je je vous ai dit que c'est ridicule c'est ridicule de bu luy haute trahison haute trahison xam nga luy haute trahison cim réew trahison déjà sax pour mën a passer à la haute trahison yoon processus bi u nar a dem non c'est compliqué on a autre chose à faire pour un président de la république sortant boo xam ne dañ ko euh, deux mandats la def euh, ñu yemale ko fa euh, indi keneen pour une première fois mu am un un directement gagné pour la première fois élection présidentielle un opposant au premier tour non mais faut pas faut faut un peu quoi euh, Laurent Gbagbo amul lu ñu ko fi yàqul bi ñu ko euh, euh, fële. CPI CPI gis nga bi mu dellu waatee dafa lëkkaloo ak ak ak ak Alassane Ouattara bi nga xam ne moom la doon xëccool te moom la bëggoon ci moom la bëggoon nangu nangu nguur gi ba Alassane Ouattara nekk fa ba moom ñu il faut il faut il faut pas ñu rentrer dans ce débat bu ñuy wax haute trahison bu si ça avait été Moussa Traoré. lu tax bu ñu ne Macky Sall nga tàng. lan la non xam nga lu tax mais man la may tàng mooy lan boo mu waxee lu yu ridicule da damay tàng parce que c'est ridicule de penser kooku wallaay ñi ko wax sax gëmuñu ko. ñi ko wax laa wax gëmuñu ko c'est comme la même chose bi ñu ma waxee dañuy jël euh, euh, kii nu mu tudd kii son euh, leer na Serigne Touba du dara. leer na sëñ Tuubaa Mbàkke bi ma yaakaar ça n'a rien à voir c'est ça n'a rien à ak Macky Sall n'a absolument rien xam lan moom un président la République sortant boo xam ne boo gisee ni mu gi ni mu nekkee ci nguur gi ak ni mu fi génne ak coow gi ni mu baree ak réew mi ni ñu ko jàllalee te te réew mi basculé wul fi mu waroon basculé ñëpp doon ko fa xaar eh bien kooku nga naan dañ koy yóbbu euh, euh, euh, dañ koy dañ koy dañ koy ñëw dañ koy dem eh, eh, ex non franchement pour indi ko ñu ngi wax loolu xam nga man am na ay wax yoo xam ne xam nga tax mu may énervé parce que dafa suufee. mais ñi ngi kon ne di berner le sénégalais di leen nax ci ay détails yoo xam ne xam nañ ne mënul nekk comme cas bi la bëggoon wax léegi rek ci CPI ñu ne ay turu est-ce que xam nga le ministre euh, euh, Birame ak ñoom euh, Jean euh, ministre de l'intérieur ñooñu ñëpp est-ce que xam nga seen tur mi ngi woon ci kiiwu CPI bi Juan Branco bi mu yoon bi mu yóbbu woon. lan moo ko fa yóbbu. non mais Birame Diop Birame Diop laa lay wax je parle du général Birame Diop qui est aujourd'hui ministre des forces armées. Ah euh, euh, ah, le général Birame Diop. moom moom la Guy Marius Sagna doon wax ni c'est un assassin. moom la moom la Guy euh, euh, dossier dossier kii euh, Juan Branco boobu. Mhm. ci la bind ne. moom daf ci bokk bokk na ci liste bi ñuy yóbbu bi ñu doon dem di defoon ci benn tollé la ma ne leen à part faire benn espèce u tollé retentissant. Mhm. du mës a dem fenn je l'ai dit à la scientifique. Mhm. du du dem fenn anam est-ce que déggati nga ci dara. wala wala mais à tout moment mënta am rebondissement. par rapport a la même même réaction bi laa amoon même réaction. Mm-hmm. non faut pas déconner parce que man xam nga. ou alors je souris ironiquement mais man melu ma noonu parce que man xam nga lan mooy may merloo. Mm-hmm. waxu waxu waxu waxu waxu waxu kàcc. Mm-hmm. ak waxu loo xam ne mënul nekk mu wóor ma ni man man li wóor na ma ne lii mënul nekk. lan moo tax nga njortu ni. Macky Sall kenn waru ko mën a toppee lii di haute trahison fan nga teg ne. waruñu ko mais par rapport à quoi. lan mooy greffe yi ñuy teg ci ndoddam man bëgg naa sax allez ok d'accord waaye nañ ma ko génneel parce que nag. mënuñu ko topp ci haute trahison. par rapport ak par rapport ak. par rapport ak dossier yoo xamante ne nee na moom moo ci tegoon concam bi ñeel li nga xamante ne ne moom moo di rapport OFNAC. Cour des comptes IGE. entre loolu mooy mën nañ ko ci topp ci li nga xamante ne tey jii nii ay crime la ba ñu jugal amnistie une fois que assemblée nationale bi ñu anéantir amnistie bi nga xamante ne amoon na fi su boobaa Macky Sall mën nañu ko topp ci haute trahison. léegi c'est simple li xam nga man dama doon wax ni man amnistie bi d'accord uma ci. Mm-hmm. li gën a yomb man dama nekk ci opposition. di xeex Macky Sall parce que Macky Sall li mu def yépp d'accord uma ci cité nga ay cas ne léegi jar nañu yóbbu ko euh, euh, juge ko pour haute trahison déjà indi ko juge ko tëj ko et juge ko pour haute trahison man man loolu laa gëmoon bi ma nekkee dans l'opposition léegi j'arrive au pouvoir j'ai les clés du pouvoir mais je n'ai pas besoin de parler j'ai juste à le faire xaar ci nguur gi mais nga yéen ñaa leen di nii rek mais nañ ko nañ nañ sax communiquer ne loolu envisagé nañ def ko waaye doo mës dégg ñu wax ko lu tax duñ ko wax mais nag Ousmane Sonko wax ñemewu ko de Bassirou Diomaye Faye ñemewu ko mais xam nga man aussi télé laay waxee waaw ci télé ngay waxee moo tax non dama ne ñemeewu ko ko parce que du dëgg parce que du fuñ ko teg laa lay wax nii man maa la wax yaay wax nii rek a xam a li ma lay ah, dafa nekk. li nga xamante ni góobu sénégalais la. par rapport ak loi d'amnistie bi yaa wax léegi góomu sénégalais yow ni nga d'accord ci loi pour régler ko c'est simple. góomu sénégalais pour régler ko c'est simple xam nga nga def dégg nga xanaa da ngay yow yaa nguur yaa yor justice yaa yor machin déclenché mbir du déclenché nga ay affaire pour nga ne temps yi am nga ñooy topp xaw ma pour affaire Covid bi non boobu sax dafa tuuti taux trahison bi moo gën a graaw léegi nañ ko def. buñ ko defee lan moo leen ci mën a fekk. yow li ngay wax nii dafa mel ni da naan sañuñu ko. sañuñu kaa def parce que duñ ko def parce que amuñu ay argument yu valable li ñuy wax ni da ngeen koy wax de manière mais ça ne tient sur rien. haute trahison il faut nga dem xool processus bi nan lay demee fan lay commencé A ba Z. fan la ñuy wax président de la république dañ ko war a juger pour yan cas de haute trahir un pays laa la wax de un pays jaay sa dëkk par exemple non il faut arrêter un li ñu def ne presque jaay la. ah Sénégal li muy dund nii presque jaay la. jaay lan. su ñu demee tey ba suñu géej gii gis nga licence de pêche yi bañ ko jotaatee ndox meek jën yi mu ngi commencé di wal su ñu demee tey ba suñu suuf gi la nga xamante ne moo xew ca Mbourkat ay responsable politique yu APR am ci ay treize hectares ay 6000 parcelles. Ah. le cas de Farba Ngom Idrissa Seck entre autres Abdou Mbow Ami Ndiaye Njibi ñu leen ciy. tudd ak ñaan nga xamante ne nii si opposition bi sax am ci aussi ah. xam nga lii laa lii laay bañ man. man su may tudd ñan ñoo nekk ci opposition bi. Serigne euh, ñu nekk ci nguur gi laa wax. te Mhm, trois trois hectares cinq. Ah, mais Bassirou Diomaye Diakhar Faye le président ba muy def déclaration de patrimoine am loolu da ko ci génnee woon wane ko. non dama ne waaw mais wane bi ça n'a pas d'importance. wane ni lii moom moo ko moom. mais loolu amul solo ah, luy sa problème foofu wane logique pour logique logique pour logique. dans un kenn waru ci am autant d'hectares am na dëkk yoo xam ne yenn hectares yi waroo ko am. am na dëkk yoo xam ne boo amee ñaari terrain dootoo amati ñetteel ilaa yow din ba ba ngay dee. lii nag ci ne la ba xam buñ ci toppee le président Macky Sall. moom ak ay ñooñam ci lii nga def nañ ko ci alalu Sénégal gi nga xamante ne yaa ngi koy wax sànq mille na tey xaalis boo xamante ne tey alalu askan wi la kenn nit ne ko dindix lekk ko nga protéger ko moom moo fi ñëwoon indil ñu fi li nga xamante ne nii moom moo di euh, cré yi d'accord naa Binta d'accord non d'accord naa li nga wax mais dama ne haute trahison nga may wax xam lan lay war a def mooy ñiy sàcc alalu réew mi yëpp ñu fexe def suñu kamtalaay kàttan ñii nekk ci ngu gi ils sont sérieux def suñu kamtalaay kàttan ba ñu récupérer lépp mais am na yoo xam ne dañuy sàcc ay suuf yoo xam ne sa terrain yooyu ngay gis noonu ay 13 hectares yooyu sax xëy na boo ko jaayee ay 3 milliards ngay am mais am na kër yoo xam ne benn kër boo xam ne 500 wala 800 mètres carrés la mi ngi ci suufu corniche bi boobu 10 milliards lañ koy jaayee yow waaye yow tey boo bëggee dem foofu. déglu ma rek de waaw ñooñu mérité wuñu ñu toppee leen haute trahison. non boobu yow yow boo boo bëggee dem foofu doo jàll. da ngay fay ci hôtel ngir mën a am accès à l'eau waaw waaw léegi ñooñu ñooñu tam duñ ko nangu ñan def on fait comment parce que am na ci régime bi am na ci régime amagul am na ci régime Macky Sall am na ci régime u Abdoulaye Wade am na ci régime la complicité de qui des inspecteurs des impôts. Mhm. parce ay terrains yu dul jeex am yenn facilités yi. Mhm. Ousmane Sonko tam am na kii de dégg am na ay hectares moom tam Sébikotane yan hectare la am Sébikotane. ah, ah xanaa tool bu ngand. Ousmane Sonko am na ay hectares Sébikotane. tool am na tool. Hmm. bu mag. loo bëgg wax foofu. déedéet tamit eh, tool la rek. comme Bassirou Diomaye Faye. comme Serigne Diop avec ses cinquante hectares. ah Malick euh, pas Malicounda Sandiara entre autres ak ñeneen Idrissa Seck Idrissa Seck yow terrain yi ngay wax ne leen. Thiès Idrissa Seck am na tool bu tool hectare. fii nii euh, est-ce que du Sandiara entrée bi noonu entrée Mbour bi. su ma la déggee bu baax dafay mel ni da nga bëgg a def xamal ne nguur gi fi nekk ñoom tamit suuf si ñoo ko njëkk a paajoo. mais mais mais mais dama système bi la c'est système qui comme ça. c'est pas le système de dañu ñëw woote rupture est-ce bi la. non mais euh, euh ce qui ce qui le système c'est c'est qui qui gère mais est-ce que tu sais ñoom ñëpp nan la ñu amee seen kër yi. naka. mais Bassirou Diomaye fay këram bi mu dëkk nii dañ ko ko jox. ku ko jox euh, ci ci seddo bi lañ ko ko joxe lañ ko joxee këru Mermoz bi 200 mètres carrés. looy wax ni li ngay wax rëy na de. non oh mais moom xam na ko wax na ko sax bind na ko ci déclaration de patrimoine bi. sauf que deful évaluation bi. dama dégg nga ni ci séddoo bi. kon na nga bëgg a wax ñoom ñi nekk ci. parce que deux parce que inspection inspecteur des inspection des impôts et domaines waa waa liggéeyukaayu domaine yi. Mhm. seen syndicat bi quoi du inspecteur kese ñëpp la. Mhm. Ousmane Sonko bi mu créé affaire bi bi ñu ñëwee taxaw li ñu njëkk a wax mooy ñoom léegi suuf bu ñuy kii ci si réew mi ñoom dinañ ci am un pourcentage est-ce que du 30 pour bu dee fukki suuf la ñoom dinañ am ñetti. Mhm. ñoom loolu la ñu wax ñoom ba loolu moo fi tegu léegi léegi ñoom à chaque fois dañuy dagg suuf Sénégal ñoom dinañ am une un certain je pense que 30 pour cent la. c'est mm-hmm. vérifier léegi bu ñu amee 30 euh, euh, pour cent yi après ñoom ñu seet ci seen biir ñan la jox. Mm-hmm. di séddoo di séddoo ba ñëpp am ba ñëpp kontaan. Mm-hmm. Bassirou Diomaye Faye noonu la amee këram boobu te moom moo ko wax na ko sax. mais ça n'enlève en rien son honnêteté en tant que nit parce que moi c'est quelqu'un que j'aime bien a priori parce que à part erreur bi mu defoon euh, di saaga di di di di traité magistrat yi mais loolu erreur nit la rek comme xëy na Bah Diakhaté li mu def bi mu jëlee bind boobu xol bi tàng na jàpp nañu jàpp nañu magam jàpp nañu jàpp nañu leader am non wax laa wax ay magistrat la saala non xool ay nit ñuy liggéey non dama la benn la rek nga traité nit de góor jigéen nga traité nit de sàcc c'est pareil ça dépend ni nga koy yëgee rek wax rek da ma bëggut déglu nguur gi fi nekkoon tey boo defee sa publication Facebook sax dafa am ay étiquettes yoo xamante ne ñoom ñoo la koy collé offense au chef outrage à magistrat 2021 jusqu'en 2024 ñoom ñi fi nekkoon dafa am ku wax rek ñu am étiquette boo xamante ni dañ la kaa takkal est-ce que nekkul le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci loolu ki la daloon mu ñu takkal ko ne dafa joxar bi ñi nga xamante ni non dafa ne waru ko woon wax tey jii nii tey jii nii buñ ay propos en tant que Uh, secrétaire général bu Pastef ak kàddu yi nga xamante ni Bah Diakhaté wax na non comparé ñaari wax yi de ñaari jëf yi de parce que wax bi sax jëf la aussi bu baa jaxate bi man comparé wu ma de waxuma loolu damal ne en tant que nit nit que fi muy toll yow déggoo ma sax fin bi may wax. Hmm. dama ne xëy na peut-être mbir mi da ko metti woon en un point ndax tëj nañu magam tëj nañu xaritam tëj nañu euh, leaderam xol bi jeex mu bind ba wax li mu warul a wax. loo xam ne tey jii nii ñemewu ko wax wala tey jii nii ku ko wax magistrat yi moom ci boppam moo leen di protéger. parce que ñaari ñaari statut bokkul woon na quoi qu'on puisse dire. Ah, waaw léegi kon vous comprendrez que ni. mais pourtant moom même personne bi moo ko waxoon wax bi tey jii nii même bu ko xalaatoon du ko wax wala loxo léegi xalaatu ko xalaatatu ko. yoon mayu ko ko. non non xala waxuma def de bi mu am mayu ko ko xalaat laa wax xalaat. xalaat ci xel loo ne mënoo ci teg dara. yaa koy xalaatal sa bopp nit ñi ils sont pas censés savoir que yow xalaat ba mu koy wax gisuloo ni tamit en terme de changement ci rupture bi ñu woote. loolu mën naa changer wax bi ma dégg nii bi mu koy wax nii ana lu tax mu wax ko. koo xam ne wax dëgg yàlla yii nii yàgg na di wax man pour man dafa juum li ma dégg nii mu bett ma trop. Mm-hmm. dafa juum. Mm-hmm. waaw wax bi mu wax noonu. Euh, est-ce que tollul ci benn mu mer wax ba mu toll foofu maintenant niveau de gravité bi bu la neexee ñu évaluer ko par rapport ak ak li li Jomaay waxoon. Mm-hmm. c'est pas comparable c'est évident. waaye en tant que nit laay wax erreur bi ñu mën a def. ci ay attitude ce n'est pas forcément dañ ko def rek ce sont forcément des gens mauvais mhm. mun nga ko def parce que erreur la wala da am ku tàngal sa xol Bassirou Diomaye Faye moi je pense que c'est un bon monsieur mhm. man pour man nit ku baax la mhm. te mus naa dajeeg moom il y a un an ci télévision avant kenn di wax yi muy wax ni man waxoon naa ko ko ci télévision ñoo ngi doon wax ci wàllum justice par rapport ak demee li nga xamante ne ne moom moo di réforme